ñu kii woon pour mën a wax ci situation bi nga xamee ne moom nañuy dund euh, ci commune Touba mu nekk situation ba nga xamee ne bu metti la ndaxte euh, ndox mu bari moo fi wàcc fan yi mu am ay inondation inondation nag boo ko déggee mooy ndox ma nga xamee ne que dugg na ci kër yi nit ñi mën amatuñu fu ñu tëdd nit ñi amatuñu euh, seeni kii yàqu na mais nit ñi sax mënatuñu dox seen i activité et loolu bu nekkee ne dañ koy dañ koy méngal rek sur le plan économique donc dafay am ay conséquences yu bëri ah, si si si si kii bu nit ñi euh, loolu nag li ko waral mooy euh, dañu jot taw bu am solo euh, fan yi e loolu it il faut que ñu xam ne que li ñuy tuddee peut-être changement climatique dañ ci am wàll parce que dafa am ay jamono ya nga xamee ne que taw bi bariwul woon jékki-jékki taw bi di ñëwaat fi mu nekk nii ci cycle boobu nañu nekk ci ñaari fan yi nii euh, am na ñaari fan ya nga xame ne que euh, recevoir nañ ci lu toll ci cent quarante sept millimètres maanaam euh, lu lu lu yemu ak téeméer ak juróom fukki millimètres su nekkee dañu wax téeméer ak juróom fukki milimètres day mel ni nga jël téeméer ak juróom fukki litre ndox nga sotti ko si si si benn mètre carré donc mètre carré bu nekk am na bërigo ak genn wàll buñ fa sotti loolu day wane un peu ampleur bi nga xamee ne que moom la am ndox mu bare bare bari moom nañu moom nañu jot et loolu moo tax d'abord bi ñu recevoir 73 millimètres ci guddi 14 quinze août fi nga xamee ne que mooy bassin bu Kër Ñang mu débordé woon ba euh, kër yi nekk foofu ñu am ay inondation bi mu amee nag automatiquement le gouverneur ci boppam déplacé wu na de Diourbel ñëw pour d'abord bokkax situation boobu naqar boobu ak population yi mais aussi waxtaan ak ñoom ba ñu mën a xool solution yi nga xamee ne que moom de manière immédiate moom nañu mën a def mais aussi yeneen yi nga xamee ne que day jógee euh, peut-être moyen terme lay doon et yeneen yi nga xamee ne dañ koy def à long si biir solution yi nga xamee ne que moom nañu kii woon foofu noonu mooy d'abord ñu am ay vannes de régulation vannes de régulation pour que ndox mi nga xamee ne day ñëw Kër ñaa ñu mën ko di wàññi ba nga xamee ne que Kër ñaa du mën a déborder vanne de régulation yooyu bi ñu ko kiiwee automatiquement nañ ko commencé di teg te fi mu nekk nii teg nañ leen ñoom ñëpp ba ñu ba ñu fonctionnel fi mu nekk en dehors de vanne de régulation yi nga xam ne dañ ko waroon teg de manière immédiate mais il faut se dire que les sapeurs étaient déjà là-bas nekk di pomper les eaux et que biñ fa delluwaatee dans le cadre d'une visite de suivi fekk nañ sapeurs yi libéré nañ presque la totalité des maisons c'est-à-dire maisons yu bëri libéré woon nañ la mais après am nag beneen beneen beneen taw 21 millimètres bu tegu nag cent cent 100 126 millimètres tegu si ñaar yooyu tegloo nag moo tax euh, mu Kër Niang aussi débordé euh, foofu amaat inondation mais aussi yeneen localité wala yeneen site yi nga xamee ne que ñoom nekk ay ngiraneen bon daamaatu moom euh, tamit si première vague bi la nekkoon mais dafa inondé waat yooyu yëpp ñu amaat ndox euh, mu nekk nag situation bu metti lool ñu siy masawu vraiment les populations euh, et tamit par rapport ak loolu am na ay mesures yi nga xamee ne que jëloon nañ ko d'abord ñu mettre à disposition des hydrocureurs parce que bu ñuy wax dafa am site ya nga xamee ne que day évacuer dem ci bassin Kër Niang mais am na ya nga xamee ne it amul déversoir cest dire boo ko jëlee di ko évacuer doo xam fan nga koy évacuer donc yooyu hydrocureurs yi ñoo koy ñoo koy nekk di pompe donc dañu mettre en place déjà quinze hydrocureurs ya nga xamee ne que ñu ngi nekkoon di fonctionner mais rien que démb rek vingt yeneen ñëw na en appoint donc pour mën a gën a améliorer situation bi euh, li nga xamee ne que mooy sapeur pompier yi mën naa wax ne que ñoo ngi jëkkoon na mobiliser la nga xamee ne que booy xool globalement huit cent cinquante mètres cubes lay pomper par heure mais dem na ba pratiquement cinq mille euh, plus de quatre mille mètres li nga xamee ne que moom nañu jël moyen pour mën a kii donc pour dire que su nekkee dañu jaaree huit cent cinquante ba pratiquement cinq mille c'est multiplié par cinq li nga xamee ne que mooy capacité de pompage yi nga xamee ne moom nañu am mais il se trouve que dañu am une contrainte ndox mi bari na tel que Kër Niang aussi dafa feesaat et donc pour ñu pomper dem si réseau bi il faut nécessairement Kër Niang mu wàcci pour que ñële ñu mën a pomper et que actuellement le pompage se poursuit et euh, xam naa ne ñoo ngi ñoo ngi pomper vers euh, Kër Niang Kër Niang di dem di yobbu euh, si yeneen site de refoulement yi nga xamee ne que moom moo nekk en dehors de la ville nga xam ne ñaari site la bu si nekk am capacité bu deux cent cinquante mille mètres donc bu nekk am na capacité deux cent cinquante mille mètres ñaar yi boo ko boolee moom ndox mi nekk fii yëpp mën na dem foofu mais pompage bi mu ngi dem si mesure yi nga xamee ne que moom nañu jëloon aussi mooy capacité de refoulement maanaam pompe yi nga xamee ne que moo nekk Kër ña ñu dolli si ba nga xamee ne que pratiquement dina doubler pour mën a évacuer les eaux parce que ñoom fi mu nekk nii ñoo ngi à peu à 3000 mètres cube heure bari na mais bëgg nañ ko yokk loolu techniciens yi nañ si gën a nekk di xool pour xool nan lañuy mën a yokkee capacité de refoulement bi nga xamee ne que moom moo nekk Kër Niang euh, par rapport ak euh, sinistre yi euh, ñoo ngi nekk di def recensement bi commencé woon nañ ko Kër Niang mais fi mu nekk nii ak taw yu bees yi ak nouveau sinistre yi ak yooyu ñoo ngi xool ban dispositif nañu mettre en place pour d'abord am ay équipe yu bari mais également Euh, ñu mën a dem sur le terrain rapidement pour mën a au moins ñu xam kan la ndox mi impacté e loolu liggéey boobu bu ñu koy def ce sera pas juste le service technique qui seront ñoom ñoo koy def mais maire aussi da ciy am une fort implication aussi ñi nga xamee ne que ñoo nekk ci quartier yooyu maanaam le délégué de quartier et aussi les jeunes les femmes ak yooyu le petit comité de quartier bi nga xamee ne moo nekk foofu dañ leen di impliquer pour que ñu am un recensement exhaustif euh, si ñi nga xam ne que ñoom ñoo impacté euh, beneen mesure mooy euh, la mise à disposition d'un site ba nga xamee ne que ñii nga xamee ne que bëgg nañu jóge seen i kër amuñu fu ñu dem ñoom ñu mën a déplacé wu ñëw foofu mooy école bi nga xamee ne que moom moo nekk ginnaaw préfecture waaw moom nañu moom nañu d'abord mettre en place pour loolu démb aussi jël nañ yeneen ñaari école dans le dans dans le Mbacké euh, donc pour ñu mën a abriter ñi nga xamee ne que ñoom ñoo nekk dans cette situation la mairie également euh, s'est engagée à faire des prospection ah xool ban place wala ban bërëb yi nga xamee ne que moom nañu mën a kii pour mën a am sinistre yooyu loolu mooy liggéey yi nga xame ne que moom nañu nekk di def pour euh, quand même euh, ñu xeex mbënd mi du xeex ba nga xamee naka nag ñaari fan nañ koy def wala ñetti fan mais euh, dina jël peut-être quelque jour mais quand même dinañ si nag lépp li nga xam ne moom nañu am comme énergie moom nañu am comme doole moom nañu am comme xalaat dinañ ko si def pour que vraiment ñu mën a venir à bu de ces inondations là euh, démb enregistré nañ quatre décès mooy ay xale yu ñàkk seen bakkan di profiter ci occasion bi pour euh, jaale seeni wayjur mais également jaale toute la population euh, de Touba euh, ndaxte doomu aadama moom dafa dafa sacré donc benn bekken rek moom boo ko perdee sax lu bari la e mu nekk situation ba nga xamee ne que moom seen une situation regrettable kenn ki xale bu jigéen la ba nga xamee ne que dafa jógeen këram mu Euh, dugg si ndox mu ngi am juróom wala juróom-ñaari at euh, yeneen ñett yi nag ay xale yu ndaw la ay xale yu góor peut-être ay 14 12 13 ans yooyu lay war a am euh, yu doon sangu si benn man nañ ko tuddee déeg si sorti Daaru Rahman ñu malheureusement ñu lap foofu boobu moom mën nañu wax ne que c'est pas directement lié aux inondations dañ doon sangu ci ci ci ndox mi euh, ma ciy profiter pour lancer un appel vraiment aux populations de manière générale mais au para pour que ñuy gën a mën a xool xale yi ndax xale yi moom euh, seen yaram dafa tàng des fois ñoo ngi daw fii jaar fii ainsi de suite mais situation bi ni mu demee nii war nañu garder beaucoup plus de vigilance ñu gën a xool xale yi si lan la ñu nekk pour que vraiment euh, accident yi mu bañ a di arrivé lu bari waaw euh, di profiter si occasion yi pour euh, sant ak ngërëm autorité religieuse yi commencé si sax par sëñ Muntaxa si taxawaay bi si accompagnement bi si yëg-yëg bi nga xamee ne que moom la yëgee situation bi mu nekk lu am solo parce que vraiment ku wax Touba wax sëñ Mountakha